lay nuyu bu baax waa Leewtoo TV di leen ziar bu baax di rafetlu it seen taxawaay ak seen liggéey. Euh, Père ci làmb nga ne yaakaar naa tey làmb nit mënu ci dee def def wala mu wax ci lu la jaaxal ñu seetlu ko fan yi ñu ngi dégg ci presse bi. ay mbër yoo xam ne seet leen ne seeti nañ leen pour diw ak diw comme Balla Gaye Tapha Tine Gris Bordeaux Lac de Guiers ak yeneen ak yeneen ba jégg sax ay kase yu ñuy avancé na fay nañ leen ko ñuy bañ yow tey fi lamb toll parce que dañoo dégg ñun. waaw man dégg ngoo ko ñun de dégg nañ ne Balla Gaye fay nañ ko quatre-vingt-dix mu bëreeg Tapha mu laaj cent trente Gris Bordeaux fay nañ ko soixante millions mook Lac de mu laaj soixante-quinze. waa c'est-à-dire xam nga ñoom seen bëgg-bëgg la am ay mbër la danay am cachet boo xam ne bëgg nañ koo bëre te par ma Balla gay mérité na cent cinquante millions. Gris Bordeaux mérité na cent millions. waaye jamono moo toll foo xamante ne nii tey. damay bañ ñuy def erreur parce que Ama Baldé def na erreur bi ba année blanche ñu fay ko soixante dix millions ci Siteu mu ne bëriwu ko soixante dix millions dafa bari fonctionnaire yaa ngi nii bëgg a dee ak ñeneen ak ñeneen ak ñun ñii ak ñëpp ah te soixante dix millions mën a defar lu bari ci kër mën a defar adduna yi nit kon tax na bu na jëlee waaye fay la yenn xaalis yi normalement war nga ko jël ndaxte làmb fi ñu toll bu mu neex mu naqari day am soppeeku goo xamante ne ni daf ciy am soppeeku gi mooy conjoncture nit day comprendre jamono fa mu toll promoteur yi fi nekkoon doon tëgg làmb dan fay loola sponsor yanu amoon amatuñ ko léegi loolu il faut mbër yi di ci bàyyi xel et puis mbër yi di bàyyi xel ni làmb ji toll na niveau boo xam ne li nu war mooy ñu yëkkati ko ku nekk bëre xam nga ñaari ñaari quatre-vingt-dix moo dàq benn cent. ci benn at nga am ci ñaari nga am ci moo moo nga am ci benn cent nga bëree ñaari yoon. te xam nga li tax xale yi léegi boo natoo comprendre kan mooy champion xam nga champion boo xam ne yow benn at nga benn yoon nga bëri ci at mi après nga ne yaay roi des arènes wala yow yaay champion yaa mën ci làmb ji da rek mënoo ci làmb ji mm. déedéet mënoo fii. ki fi man da daan bëri ñeenti combat ñetti combat juróomi combat mais ci benn saison nga bëri benn combat après ñu ne yow yaay roi des arènes wala fi dàq bëri yow yaa fi man ci ak kum ci man doon nax nan la nax nan la mu loolu l'année dernière sax au moins moom bëri na ñaari combat ah, nga ko comprendre mais loolu xooloon ñaari combat yooyu la ko indil biñ dee calculer cachet mbëri ku ci ëppale du Modou Lo bëri bëri ay combat moo ko dàq benn combat bi ngay bëre ci cent boo amee ñaar yu soixante wala ñaari yu quatre-vingt demal nga bëree ji ko moo gën si sinon làmb dafay toll foo xamante ni lenn moo nuy mën a sauver xam nga làmb nag daa am euh, liggéeyu ndey jekki-jekki rek benn waaye xàlle ca dagg dagg ca yoon nga ñu fekk ñaari mbër yu tëdd di nelaw mu fay leen ku nekk cent cinquante million loolu dinay am te bu ca jógee dootul ñëwaat ñi ko fi def ñëpp ñëwaatunu boo ko xoolee ca ña tëggoon Tyson Manga ña noonu par kenn kenn ñëpp ñi nga xamante ni danoo ñëw duñu ay promoteur ñëw dugg ci làmb pour sauver benn combat dugal si ay millions ban ca paree danoo perte. del si waatunu te nag fexe ba toog fi moo gën ci coppet. waaw mbër yi nañuy xalaat loolu néew ma leen nag ñu dem jël lu leen lu leen neexut déedéet waxuma leen ko loolu moom na leer waxuma ko kenn waaye daal nañu xool fi làmb toll ak li leen làmb mën a indil ba tax na ñu war ko mën a bëree soixante-dix millions quatre-vingts millions kun ko ci fay cinquante millions. dëgg dëgg pour man pour man xaalis la boo xam ne war na mën a jëriñ ku ne. am na solo père mais fi may jeexale ak yow euh, dañu dégg tamit kera fan yi bërki démb sax ci journal sunu làmb Landiang defe naa xam nga ko danañ moo yor kaddu taay singa mu génnaat ci sunu làmb ne ñoom pare nañu ngir jël Balla gay 2 te Balla Gaye 2 sax Eumeu Sène a ko man fuuf mais bu ñu leen fayee kase bu baax ñu jël ko. waaw loolu de bu dee am na changement la la Landiang wax ak lan daan wax. waa xam nga nag conjoncture day am te changement situation day am. parce que situation bi Eumeu seen taxawoon nekkatu fa moo tax booy wax dara na nga xool bu baax li nga xam ne moom nga mooy lu mën a may quand nag bu dee xool stratégie la woon pour man. ah lim comme li mu doon wax ne dootul bëre ak Balla. xanaa bu demee ba la njang tey ji mu toog ni du du nu bëre. na nu bëree ak moom. ça veut dire que danoo changer stratégie. Mhm. waaw waaye nag euh, li taxoon ñu war a mën a bëre moo raw loolu daal. Mhm. waaw est-ce que tamit maanaam toog ne du ma bëre ak mbër wala dootuma bëre ak war na ko wax en tant que. bëreewul ak muy bëreel. loolu tamit na ci Eumeu Sène di bàyyi xel xam nga li tax mu bëreeg Modou Lo xam nga lan la. du ma bëreeg Balla gay moo ko yóbbee bëreeg moo ko yóbbee bëreeg Modou parce que dañoo dem ba Eumeu amatul beneen euh, adversaire bu dul Modou moom rek a fi ne te Eumeu am na ñëpp n'importe qui quel lutteur Eumeu Sène war naa mën a bëreeg yow champion la ay maa fi bàyyi kii maa fi bàyyi amul ci làmb man de loolu la njang wax ah kontaan naa ci de. man ndaxte bu ma sañoon dinaa gis ko mbaa Balla Gaye ak Eumeu Sène. kon la man mën naa jàpp ne su ma la déggee Eumeu dafa juumoon ci communication. ah non mais est-ce que waaw bien bien am na njuumte goo xam ne du ma bëri diw du ma bëri ñu wax mu ne buñ ma fayee cent millions du ma ko bëree buñ ma fayee cinq cent millions du ma ko bëree non du noonu du noonu mbër yi tamit na ñuy xalaat bu baax daan naa la ñaari yoon warta tax du ma bëri yow ñoom maam góor gi Ousmane bu buñ la waxee ñaata yoon la nu bëri nga weddi ko peut-être bëri nañu ay juróomi yoon. làmb yi mbër yi noonu lañ daan bëree di bëri Tafa Gueye ak euh, mbër ma waay xam nu mu tuddati te gaañu daam sugeer ñaata yoon lañ bëri. daam sugeer di bëri nañ lu bëri. Yékini ñaata yoon la bëri ak Balla Beye. ñetti li bëri ak Bombardier làmb noonu la làmb noonu la. amul ba xoolal mën nga ko di ko daan di ko daan di ko daan ba bis ñëw mu daan la lamb la kenn xamul lan la. ndax Tafa Gueye su ma jublu daam sugeer daan na ko bésu si biir waaw mu doon feetu mu daan ko jël bu rëy waa Fass jaaxle làmb noonu la kenn moomu ko da ngay làmb rek yenn saa yi mu baax yenn saa yi du baax. booy get ndar sa waajo nag daf muy niroo nen nee na ma père laa lay xoolee ma ne ko loolu moom dina ko wax père Bécaye. ah loolu neex na ma. ndaxte niroo la ak yow ak yoon wi nga jël nii ci wàllu média vraiment am nga lu bari loo indi. waaw Babacar ma wax la ko ma bañ la ko war nga koo xam bari na loo xam ne indi nga ko ah et puis nga ñu bari am nga fit yaa ngi ci yaa ngi doxal et di la encourager et fi ngeen bokk. ak seen i kilifa ma gis liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lay léegi ñoom Diaw ak Thialis ak ñoom ñëpp vraiment ñu leen di ñaanal et ma gis fa ay vrai journaliste ñoo xam ne ñii article yi ñuy bind yu tegu ci yoon la li ñuy def it teg nañ ko ci yoon ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant. kontaan naa ci yow yow suñu royukaay nga. jërë ngeen jëf.